pour le moment li ma yaakaar ni mën na fa génn ci njariñ ci jeunesse bi franchement sentiruma ni dina fam am parce que waroon nañoo mën a jël nit ci ñi nga xam ni ñoo doon subir conséquence bi ñu jox ko parole mu expliquer leen ñoom nan la ñuy def ba bañ a comploteur ti complot yoo xam ni ñun dañuy subiir le pot cassé par exemple bu fekkee dialogue dafa waroon a am ci réew mi bu baax très concrètement wala réconciliation jàpp naa ne am na koo xam ne waroon nañoo mën a représenter ku ñuy wax soxna Adji Sarr peut-être waroon na mën a nekk ci biir dialogue bi parce que lépp moom dafa nekk figure emblématique wala témoin oculaire par rapport ak ñun ñi nga xam ne ñooy subir ñoom seen ay complot ñoom politique yi man jàppoon naa ni loolu bu amoon danaa gëm ni lii lu ñuy def lu ñu gëm la mais c'est la même chose ñoom ñoo crêpé les chignons ñoom politique yi ñoo wala bëggal wëlbati ko ñëwaat lijjantiwaat ko et puis ñun kenn duñu jox la parole amuñu occasion wu fu ñu fu ñu waxee ci seen kanam amuñu fu occasion tamit fu ñu waxee feneen ci ci ci waxukaay yi la preuve maa ngi ni bëgg a wax li ma sentir ñun lañ ci noonu lay continuer rek lii am ni dana amaat d'ici cinq ans c'est la chose. Diallo euh, Cheikh nee na Adji dafa waroon ñëw ci dialogue bi moo ci mooy la personnalité ou la figure manquante.